maa ngi lay nuyu sa sant di la gërëm ci sa teewaay di sant monsieur le ministre Matar Ba mi nga xam ne wax dëgg yàlla instant yi ñu nekk nii fa mu jóge dafa suri ndaxte dafa nekkoon di def ay consultation di liggéey ba conclusion yam mu jël téye mu ne man Bira Sène laa gis pour ma dégg ko làmb Eh, ca foofa ma ne xam naa kii daf ma bëgg a ci sama militance sportive bi nga xam ne def naa ko depuis quarante ans ñeent fukki at ma wax ne également lettre mission bi ñu jox léegi comité national de gestion de la lutte en commençant par le bureau dara ko xool moo moo ko gën kaa comprendre def ci ay programme ci biir màndaa bi nga xam ne moom la ñu jox ndaxte diggante ki la dénk ki ñi dénk ak la dénk la fa nekk amul frontière loolee ah, fi fii ñu nekk ni aussi ci arène nationale bi li tax mu defee ko fi gëm naa ne du hasard mais symbole bu mag a mag la li mu def nii dafay wone ne ñu ngi suñ milieu naturel et que ñu gërëm sant monsieur président la république bi nga xam ne jël na joyau bii jox ko jeune sportif yi nga xam ne ñooy yëngu ci làmb te nag am naa yaakaar ne ñun ñoo fi amagum boo xam ne suñu discipline ndong moo tax mu jóg ñu ne arène nationale dégguñu leneen Sénégal yàlla ñeneen ñi am mais bii moo taxaw lii moo amagum. Euh, monsieur le ministre des sports monsieur Ba di ko gërëmaat di ko santaat bu demee bi ci région yi jukki fa aw sénégalais ne moom lay dégg mbir bi dafa bëgg tekki ne loolu mooy tekki ne compétence ak fu mu nekk ci réew mi état su ko soxlaa dana ko jëlee mu ñëw. loolu dafay dafa loolu aussi message la message bi mooy que ne jeunes yi nekk ci biir réew mi yëpp ci nekk. war a nga yëngatu ci lu am ful ak fayda ba nga xam ne saay bu tànneef amee nga bokk te nañu tànn loolu da jën yi gën a am yaakaar te dama ñu gën a toogaat ensemble leneen la ma ci li ma ci bëgg rek mooy que ne ma profité ci instant bi ci toogaay bi taxawaay bi yàgg na naam mais ñoo ngi dellu di tàllal loxo ñëpp sénégalais yëpp tàllal loxo waa axlu làmb ku nekk ak foo muntu toogee ak noo muntu toogee ak foo toll ci làmb daal lañ la loxo jox la suñu loxo balu la àq baal la àq invité la nga ñëw ñu bokk liggéey bii li ci sumb nii euh, du jeex du jeex avant Alioune Sarr làmb da doon am ci Alioune Sarr làmb am na après Alioune Sarr làmb dina am waaye dañ ko rafetal làmb am na coow waaye fépp am coow waaye làmb bañ koy coowee du palaasam coowul ko fañ war a coowee loolu moo tax ñu làmb dafa bëri coow mais partout sport moo mel noonu xëccoo bu dagul di kon nag fa mu am coow mais ñun ñu koy coowee xëy na moom moo baax mais nañu bàyyi loolu taxaw parce que monsieur le ministre mission bi ñu jox mooy na lépp set na lépp set na jàmm am jàmmoo leen loolu la ma dénk mu ngi ni toog dama gunu kon nag ku bëgg jàmm ak ka nga xam ne jàmm war ñu mën a ànd làmb ji nga xam ñoo ko moom bu dee beneen espoir la football dañ ko tabaxee feneen ni ko ñu nag ñoo moom suñu làmb di ko tabax yeggagul nag te du yegg ci mandat bi aussi mais nañ ci góorgóorlu équipe bi nga xam ne moo fi nekk du ma ne groupe bi ndax groupe leneen la waaye équipe muy CNG ma nuyu leen ñoom ñëpp sant leen ndaxte groupe bi Matar bi équipe bi Matar bi Matar monsieur le ministre Matar ba taxawal ay homme de valeur gis naa leen ci xàmme naa leen ràññale kon nag bu ko defee ñu am yaakaar te ñaanal équipe bii bu ñu ñaanal Bira Sène mais nag ñaanal équipe bii ñu dénk yenn yi pour que mu attan ko mën a dem xam nga équipe bu Gaston Mbengue bokk fa Abdoulaye bokk fa ay rakam ànd ak ñoom ñoom laxaat ah, ak yeneen ak yeneen. foofu am na am na am na am nañu ko yaakaar Bassirou Babou président des managers maa ngi lay bu baax nga te wax dëgg yàlla yaa ngi ànd ak ministre Matar Ba di ànd ak CNG aussi dina si nocci pour lépp maase Papa Fall monsieur Gaston Mbengue dox leen gën leen dox loolu gën leen dox loolu yéen ñiy toog pour leen ne man bu nit tëju li mu ne monsieur li mu wax nii danaa ci taxaw mbër mu xëy téléphone am sonné ma ne kar mu jël ma ma ne diw yaay diw mu ne ma waaw ma ne kaay gunge ma amu frontière frontière danaa jël muy mbër muy amateur muy manager muy ko ne sax grand place ne ma ne ko kaay ñu ànd fi pour que mu gën a yaatu nit ñi xam ne ñun ñoo ko moom solu séenwu la am na ay grand place lamb fii nag Ndakaaru boo demee toogu ñoom ne yéen laa seet seet seet seet waxtaan ak ñoom dénk na it ne ñu dem seet écurie mu gën a yàqu waaye ñun ñëpp dañ góorgóorlu mu écurie règlement yi nga xam ne ñu ngi fi direction ANSA teewu nañ ko xool saytu ko man loolu d'abord mbébét bu njëkk la ministre monsieur le dina ko léegi parce que même boo demee ci yeneen sport yi nit ñi dañuy téye règlement di ko jàng di ko jàng parce que règlement boobu sax am na loo xam koy toll mooy ëpp gàllaaj ba nga takk parce que mu xam ne lii mbër bi su ko defee daan naa mais am na solo li ko indi nag mooy mu am des formations de qualité dans les ay secrétaires généraux yi ñu jàng les entraîneurs ñu dem jàngi règlement yi bu ko defee dana nooyu on va travailler dans ce climat boo xam ne vraiment am naa yaakaar ne mission de monsieur le ministre des vraiment gërëm nañ leen sant ma jeexalee ci docteur Alioune Sarr euh, docteur Alioune Sarr nit ku yaatu la ku la sénégalais bu baax bu ne bëgg na jur doomu ñu mel ni Alioune Sarr sénégalais bu baax bu ne bëgg naa jur doomu ñu mel ni Alioune Sarr 26 ans 17 ministres 17 nga liggéey ak ñoom kenn bu ko la teg. kenn ku la fay teg beneen kii kooku gàcce gàllam moom yàggaay nag bu fekkee ne léegi gàcce la ci Sénégal dana doy wax ndaxte eh, màgget yàgg ah na fi waaye <laughs> yàlla nekk dañuy naan soo amee doom nga ne yàlla na fi yàgg yàlla na màgg ba ba jaww kon nañ bàyyi vraiment boobu eh, Bira Sène ak Alioune Sarr ma leeral Bira Sène ak Alioune Sarr mag ak rakk la ak rakk ñu naan Bira Sène Alioune Sarr mag ak la mais li ki wóor te mooy mission bi nga xam ne moom la ñu déggoon Alioune Sarr bu ñu ko déggee Bira Sène dañ koy wéyale rek continuité je vais préciser encore encore il a reprécisé et c' est important ça je crois bien que loolu yëpp amul solo am solo joxante loxo ñu ànd ci liggéey bi ñu sumb waa Kaolack su mbokk a Kaolack yi gis ko gërëm naa leen sant leen sama mbokk lii mooy wax wane ne làmb ji mënul ñàkk bruit presse bi di mu teewee fii xam nga ne dañoo am intérêt trop trop bu ñu ci presse ci làmb ji kon nag euh, du daan jekkoo loolu nañ taxaw ci amateur yi Malick Gningue Ares taxaw leen ci écurie école de lutte yi vraiment bu avez un gros chantier bu leen nax seen bopp vous avez un gros chantier da ngeen liggéey ah dañ leen dañ leen ko jox da jox ay documents ngeen travaillé ci te rapports yi dañuy bëgg dem bu leen bu léegi naxante boobu du fi am donc je crois bien que suñu taxawee ak suñu comité national bi waxtaan ak bureau bi waxtaan ak euh, comité directeur bi ci fan yi ñëw euh, dana am ay kayit yu ñu génnee. yoo xam ne vraiment dañ koy yóbbu fu war a dem te ku nekk ci pàcc ba nga nekk da nga am liggéey je crois que loolu mooy la mooy fayda mooy tax ñu réussir mission bi donc monsieur le ministre vraiment eh, maa ngi leen di gërëm leen di sant bu baax a wasalaam jërë ngeen jëf